jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen yëgal suñu mbégte ci teew bi ñu teew ci jumaay Tuuba ju mag ji di ziar euh, kilifa gi Cheikh Mountakha mi ko suñu boroom dénk boole ci ziar bi waa Muxaddamatul Xidma ci seen secrétaire général sëñ Abdoulaye Bousso teew fi ñuy ubbi kàddu yi ci turu Thierno Alassane Sall bi nga xam ni mooy président parti République de valeurs sunu borom dogal mu bokk ci euh, candidat wala lawax yi war a jongante ci élection bi ñu jëm ci 24 mars ñu am mbégte ñëw teew fii ci ci jumaa ju mag ji ndax li jumaa ji doon ci Sénégal réew mi doon ko ci jullit ñi tamit mu doon jëf joo xam ni képp kuy yootu jiite réew mi baax na nga ñëw teg sa loxo fi góorgóorlu ak taxaw gu mat sëkk di yóbbu xeet ba ñu kawe ndax ñi naa liggéey bi seenug coono ak seenug bëgg lu baax moo leen may tey ñu ñëw fii ba di fi yéemu moom nag lu tax ñu sawar a ànd ak moom ba ci jumaa ji moom Thierno Alassane Sall mooy woote bi muy woote ci ci valeur ci jikko yu sell ndax bi sunu boroom di tagg yonent bi ci ay jikko wa innaka la ala xuluxin azim jikko yi gën a tedd moom loolee lay woote ci politique damay faral di wax naan guléet ñu am woy politique goo xam ni mën nañ koo ñeme roy ci jikko ñeme nañ koo joxe suñuy doom ni leen xool leen ci moom ndax jàng ba jàng jote liggéey te say loxo set kon tey boo ñëwee ba ci jumaa ju mag ji fekk fi ki nga xam ni ba muy liggéey liggéeyam bu réy ba dafa ni woon bu ko kenn bàkkul nañu bàyyi ba jumaam ji taxaw loolee mooy doon bàkkoom sëñ Bay Saar ba mu ba mu dikkee ci moom indi ak i tëggam loolee la ko Cheikh Ahmadou Bamba wax moom nag ba mu jógee di wut dañ ko ne xam nañu koo xam ni li mu liggéey ak li mu daj ci boromam may na ko lu jafe-jafe lool moom boo ko jaare ci moom sunu borom mun la ko yombalal moo taxoon ba mu ñëwee tey ci mbakke mu ne munul ñàkk mu ñëw siyaar si ku tedd ki ba noppi jëlaat fi njàng ci yitti ju kawe li muy maye ndax jumaa ji ñu xoolee modernité bu ñu xoolee ni mu avancé bu ñu xoolee ni mu dëppoo ak moom yi mu indi ci programme ci wàllu hôpital ci wàllu endogénéisation mooy fexe ba tabaxal sa bopp lu baax yëkkati ko loolu mbind la boo xam ni daf koy dolli mu xam ni kon moom juumul ci programme am juumul ci yitte ju kawe bi mu am ngir Sénégal waaye xam na ni loolu du ko daj mukk te tagu ko ci sell sell nag li ma ko waxee du rek ci diine moom nag sunu borom dafa dogal mu am feeñuk jamono joo xam ni dañuy sawar ànd ak moom fii ndax damay dama koy wax naan Sénégal booy booy jël mbooram booy jël histoire mën ngaa tàmbalee ci El Hadj Umar Foutiou Tall El Hadj Umar Foutiou Tall li Seydina Ibrahima doon ci ban Israël moom loolu la doon ci doomi soxna yi Sénégal ndax sëñ Tuubaa dafa nii dafa dafa dafa fier dafa dafa dafa dafa dafa fonk Mbàkke Bawol ngir ñett lim fi gane àdduna lam fa bindee téeram bu njëkk ak la fa Alaaji Umar Fuutiyu Taal ñëwoon seere si ñëw moom see Cheikh Ahmadou Bamba Alaaji Umar Fuutiyu ba mu fi jógee ci liggéeyam bu tedd boobu di jaar ju métti bu fu mu jaar tubaab bi ba def ci jaloore yu rëy diggante ak Faidherbe mu taxaw taxawaay gu am solo ak xeex ak gu gu gu gu ak fit bu am solo ba mu fi jógee ki ko wuutu ci xeex ba di Maba Diakhou Ba Maba Diakhou Ba doon taalibeem doon xaritam wéyal xeex bi ba woote ca Saalum ñépp fekk si ko doomi soxna yi fekk si ko moo xam mbàkke mbàkke yi moo xam bu soobe yi sëñ bu soobe nga xam ni bokkoon na ci ñi ko gënoon a dar moom Maba Diakhou Ba nga xam ni Maba Diakhou taxawaayam ci lislaam ci jihaar li ko gën a màndargal mooy xare Pathé Badiate ca Paoskoto nga xam ni foofee la daane Pinet-Laprade mu doon ab ndam ak fatxu bu rëy rëy rëy boo xam ne munuñu woon jàpp ni nit ku ñuul dana defi pexe ba daan tubaab ma ngi ci àndaloon ci ñi ci gën a ràññeeku Lat Joor mu ngi ca woon Alburi Njaay mu ngi ca woon Sëriñ bu soobee nga xam ni mooy léppi Maam jaar bu Buso mi ngi woon ca xare boobu lay màndargal nag ndam loolu mu amoon ci xare bi mooy ganek àdduna maam Thierno Biraye Mbacke bés boobu mu daanee woon tubaab bi moom Maba Jaxu ndax Maba Jaxu buñ ne Poroxaan ba Jaxu moo tax buñ ne Paoskoto moo tax Patey Badiane moo tax waaye bésu ndam boobu ngir kenn bañ koo fàtte maam Thierno Birahim ci la gane àdduna muy le 30 novembre 1865 ba mu ganee àdduna ñëpp xam nañu Cheikh Ahmadou Bamba mbégte bi mu amoon ci maam Thierno ñëwam ndax xamoon na ni ci suñu borom may na ko la la mu mayoon Seydina Moussa ci Aaruna ba maam Thierno dikkee jamono Mamor Anta Sali daanaka dalal na xelam ne ko sa liggéey bi dina dina mat ndax ki la war a jàppale yegsi na moom ba mu ba mu ganee jamono 30 novembre boobu moom laa koy wax ne ko santal yàlla ndax même 30 novembre boobu benn xarnu ba mu ci tegoo moom mii Thierno ci la ganewaat àdduna ñu ne ko kon màndarga boobu ñu amoon ba nit ku ñuul daan tubaab bi ci lu wér ci lu set yow màndarga boobu amaat nga ko ba nga taxaw ba nekk ci situation yu yu métti mooy fexe tubaab bi taxaw ne suñuy suñu suñuy suñuy pétrole ak suñuy gaz dañ koy am fu ñu ko jaarale nga taxaw temm ne loolu du fi am kon bañ boobu Maba Jaxoon Maba Jaxu bañoon ba maam Cerno judd ci yow it ba nga ba ganee si loo lii danga taxaw màndargal ko maam Thierno nag ganem àdduna li ci li ci am solo ki ko indiwaat dëgg-dëgg mooy sëñ Fallou Mbacké te bu ñu ñëwee fii ci jumaa ji sëñ moodu lañuy wax sëñ Fallou la wax sëñ Fallou dafa def jëf ju am solo ba sëñ Touba jógee ci géej gi wara a dajeek maam Thierno dafa jël nif su mu doon màggalub maam Thierno mooy te nit su Cheikh ku ko xam dëgg ci biiram mooy bés bi sëñ Tuubaa gane àdduna amul amul bés bu ko gën a yéeme bés boobu la ñu jël rafaate la ko maam Thierno Birahim te loolu sëñ Fallou Mbacke moo ko def di fàttali ganek àdduna doole ji mu am na mu jóge woon ci maam Thierno ñu jël bu sëñ tubaa moom jagleel ko ko moom maam Thierno muy nit su Cheikh di seen daje nit su Cheikh Bane boobu di ñu fàttali ni kon ki fa dikk moo waral lii lépp kon bu ñu ñëwee tey ba toog fii ànd ak moom mii Thierno muy wut réew mi te wutu ko ci topp bakkenam ndax alhamdulilah jihaat jooju may wax ni nag ba ko mabba jëlee famu dalaat mooy ci loxoy sëñ Tuubaa waaye biddaa bu baax bi ci judd mooy ba sëñ Tuubaa wàccee ñëwee jamono ci la jihaat di jëli fetal dakk jihaat bil ulumi wa bi par la fois et la crainte révérentielle Serigne Touba loolu la ko sunu borom sant sakku ko loolaa waral képp kuy wut kum mën a doon buñ la xoolee sa programme lu mu baax baax boo ci indee xeex boo ci indee reyante xamal ni jëf nga jëf joo xam ni Sénégal du loolu lañ ko lañ ko soxlaa moom nag alhamdulilah xelam ak xalaatam may na ko xeexam mu tënk ko ci xam-xam mu tënk ko. ci doxal jub ak doxal lu baax ñun nag la ñuy xam la ñuy mën la ñuy jëf day delluwaat li sëñtuwaa wax ci faw fawzeyni nafsi wa diini suma ahli wala walat wa maskani làkk wa dihatun bat suñu lépp lépp lépp xam nañu suñu borom ci Cheikh Ahmadou Bamba la ko jaarale moo tax ñu ne ko loolu mënul ñàkk nga ñëw xam ni fii boo fi barkeeloo Cheikh Ahmadou Bamba day xam nañ tuuti rek cëram ci suñu borom ba loo fi ñaan mën sunu baram mën na la koo defal ñu am ci rafet njott gu ku mat sëkk moo tax ñu am mbégte ñëw teew fii ngir gunge ko mu ñëw siyaare si mu ñëw barkeeloo bërëb bi waaw loolu lañ doon ubbee salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani ma nag baat bi moom <laughs> campagne bi ak wax ju bari ji moo ko xaw a daal di gàllankoor tuuti waaye di wane mbégte teew fii ci Touba ci ndorteelu chahru ramadan bi nga xam ne weer bu tedd la ci jullit ñi fépp fu ñu nekk ci àddina bi e, julle fi timis di nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke di sëñ Touba tey jii di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàgg fi lool ànd ak wér di nuyu mboolem ahlum yu e, di kontaan trop ci dalal bi ñu dalal fii ci bërëb bi tedd bi euh, ànd ak euh, sëñ Abdoul Ahad Bousso di secrétaire général Moukhaddamatoul Khidma di di ko nuyu bu baax di ko ziar bu baax di di nuyu mbooleem ñu fi nekk di liggéey ci liggéey bi am dañ fi jàng lu bari doo ko mbokk mi Alpha waxee Alpha mu nga xam ne daanaka wax na lépp euh, lu bëri luñ ci mën a teg waaye ginnaaw topp yàlla fonk di ko jaamu li nekk ci jumaa ji ndax euh, gannaaw jaamu yàlla yi ak euh, dajeek nit ñu sell nit bu baax nga xam ne mbégte la dajeek ñoom ci weer wi jàng nañ fi lu bari lu ñuy gën a yokk gëm nii lépp lu ñuy liggéey bu ko yéene mot sëkk jiite rek lal ko ak dëgg euh, mun nañ ci séentu ndam bu kawe ndax jumaa ji ña koy tàmbali yéene ak pas-pas lañ àndoon damay joxe souvent misaal ci li liggéey jumaa ji ak li indi raay yi jële ko njaareem indi ko fii ngir matal ak ñoŋal liggéeyu jumaa ji waaye ba ma duggee ci biir gis infirmerie bi fi nekk nga xam ne damay faral di wax ci suñuy programme fépp fu doomu aadama yi den daje war nañ fa am lu mel ne infirmerie muy luuma yi muy rawatina jumaa yi muy dëkk yu sor yi te nit ñi di fa daje ndax fagaru moo gën faj donc gis nañ fi infirmerie bi gis nañ fi euh, chambre froide yi fi ne gis nañ fi sax boulangerie pâtisserie bi fi ne nga xam ne xéewal yu bëri ñuy jëfandikoo ndeke fii lañ koy liggéeyee loolu moom man <laughs> xalaatuma ko woon ko woon it waaye boo gisee mbërëb bi niñ ko organiser nu mu la sellee nu mu setee nu mu organiser nga xam ne yéene moo war a jiitu lépp loolu daf ñu war a gën a gëmloo ni Sénégal euh, yéene lañ lañ ko war a ci kaw yéene lañ ko war a tabax ndax bu ñu bëggee tey jii nii liggéey Sénégal ñu ci génne ñii nga xam ne yàlla daf leen may xel bu màcc ci seen ni ñu organiser ba lii lépp mën a teew te dara du déplacé du nekkul ci place am newu ci euh, désert bi fii avancé Sénégal gi nga xam ne mënoon nañu nekk jardin wu Afrique de l'Ouest ndax boo xoolee Casamance ba Fuuta ndox mu ngi partout waroon na mën a naat càpp naa ni ni ñu organiser tuubaa ca kanam muy liggéey bu ñu sukkandikoo ci modèle yu mel noonu ci misaal yu mel noonu war nañu mën a liggéey Sénégal ndax kat kilifa yi liggéey lii bu ñu leen dénkee wax ak ñoom waxtaan ak ñoom wax leen ni kat dañu war a dàq désert bi daan ko dinañ ci taxaw taxawaay ba ci war bu leen wóore ni njëriñu askan wi la te naxaati amu ci bu ñu leen neewee raay bi dañ ko war a suqali nii kilifa yu baax yi tax tabaxoon raay diggante curbel ba njaareem ba tuubaa ñu ko defee woon def naa ni bu ñu bu leen wóoree ni njëriñu askan wi la njëriñu réew mi la njëriñu diine gi la dinañ ci def seen kéem kàttan ngir senegal yëpp nekkaat raay euh, loolu gëm nañ ko loolu tax mënuñu liggéey réew mi te sukkandiwu ko ñëwuñu ci liñ fi gis liñ fi jàng ma gën a sawara ñëw Touba ñëw lu bëri jàng fi lu bari di nuyu kilifa yi fi nekk yëpp bu ma bu temps bi mayoon ma ma gën ci eh, wax ci li ma jàng fii ci ay waxtaan yi ma dajeeg ñu mel ni jiitu Touba ca kanam sëñ Abibu Mbàkke maa ngi koy nuyu bu baax lu fi jàngale ci eh, buñ la dénkee naka nga war a sellale ni ko way juróom bu baax di den defee lu ma gën a frappé ci moom maanaam lu ma gën a yéem ci moom lu ma gën a jàng ci waxtaan yi tax ma gën a jege sëñ Abibu mooy ba mu ne bi sëñ bi mag sëñ euh, sëñ Fallou làqoo li mu bàyyi fii ci alal du woon matul woon ñetti junni mooy ko bàyyiwu leen dara ci alal alors que tey jii nii ñu jiital ñiy séddale seen bopp lañuy njëkk a sédd ndeke loolu bokkul ci ngor waaye bokkul ci diine it waaye bokkul ci dara ñu ji suñu sëriñ si suñu maam yi suñu kii jàngale te teewul tey sëñ abibu buñ ko dénkee moom nee na ma bu demee fenn Tuubaa ca kanam bu fay naan sax ndox da koy yóbbaale yooyu jikko yooyu lañu bëgg ci ku ñu dénk dara buñ la dénkee réew ndox mi ngay naan sax amaana yow danga ko war a yóbbaale ci pale bi essence bi sax amaana yaa war a jënd laal sa poche yóbbu ndax boo xalaatee ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw bi bu ñu feebaree ambulance bala muy ñëw da leen di laaj carburant njëgu carburant léegi léeg seen bakkan rot ci loolu te yow ñu dénk la jox la carburant bu doy bu ñu ñëwee ci bërëb yu mel nii ci yooyu la suñu xel di gën a dellu ñu gën a gëm ni comme ni ma ko waxee ci njalbeen gi euh, yéene ak sellal moom mooy euh, sax yaayu ak baayu développement développement mënul am ci yéene ak euh, yéene bu motul wala sellal bu motul bu mat bu mat matat plutôt da ngay da ngay da ngay yéene sa askan yéene sa réew Euh, di sellal saa yu ne ci lu ñu dénk mooy tax réew mi mën a développé wax ji xaw na gudd nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm mboolem ñu ci fekk euh, dalal ngeen ñu nu ñuy dalalee vraiment mbokk di nuyu mbokk taalibe yëpp fépp fu ñu nekk a ah, ci àddina gi xam naa ni ku kor kii jotee weer yu tedd gi ñoom ñëpp seen xel mu ngi ci bërëb yu sell yi ak ñu fi jaamu yàlla ak donc ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp rawatina ñu nekk Amérique Côte d'Ivoire ak feneen ak feneen dem naa ci daayira yu bëri kër Serigne Touba yu bëri ci biiru àddina bi di leen nuyu nuyu di leen ziare ñoom ñëpp di leen wax ni ñoom it ñu yokk ñaan Sénégal xaw na doy waar fan yi waaye incha allah jàmm rek lay mujj dinañ dem ci jongante yi ci jàmm ak salaam te dinañ ci génn ci jàmm ak salaam ndax ñaan yu baax yi fi maam yi ak kilifa yu baax yi bàyyi leen di gën a nuyu di leen di ziar bu baax leen jaajëfal di jaajëfal particulièrement sëñ Alpha bi nga xam ne moo ma woo ba ma yegg si fii tey daan naa fi ñëw nag julli fi ay yoon yoon ànd ak sëñ Abibu wala sëñ Amsa ak ñeneen rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa ala alihi wa sahbihi al ghurri al mayamin wa man bi ihsani ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu délégation bi nga àndal di am mbégte mu rëy ci di la daral ci barab bu tedd bi ci jumaay Tuubaa ji di rafetlu it kàddu yu am solo yi nga xam ne jot ngeen ko fee jibal muy kàddu yu fees dell ak xam-xam di kàddu yoo xam ne fàttali nañu démb démb joo xam ne eh, sunuy maam ña nga woon ci biir eh, di ca xeex eh, ni mu ko nettalee léegi ci xareb ma Cheikh Umar Fouti Tall suñuy maam yi ma àndaloon jóge Fouta ni mu ko nettalee ci xareb Maba Jaxu Ba suñuy maam yi nga xam ne ñoo jóge woon fii te boobu fekk na leen Jolof ak Bawal ñoom ñëpp ñu ànd ak moom dem ca xare boobe sunu maam ñun ñii di wax ak bokk ci di sëriñ Bousso bi jur sëriñ Afia mu jur sunu baay kon loolu lu mu ci wax rek xam nañ ko xam nañ ne it li mu ci wax lépp dëgg la. di am mbégte itam ci tànk yu rafet yi nga xam ne dox si nga ko tey jii ci barab bi ak ñëw gi nga ñëw bokk ak ñun mm, sunu liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci jumaay Tuubaa ji doogoon doog ñun jullee doog ñun timis ànd ak ñun toog waxtaan jox ñu sa temps lu baree baree bari donte nag xam nañ ne jamono xat na lool ci yow ite it bari na yaa ngi toll ci jamonoy campagne ñi lay xaar bari na li lay xaar bari na waaye teewul nga jël sa temps visiter liggéey bi yëpp loolu nga yëg ne yëg nañ ko bu baax ndax xam nañu temps ni mu seere euh, Sëriñ waa jàngal nañu ko ci ci naan xam nañ lan mooy temps lu temps lu mu tuuti tuuti rek gànjar la gu seer wala wurus la bu seer woo xam ne euh, toujours la nga koy def na nekk euh, lu ko jar waaye jàpp naa ne nag lii lu ko jar la ndax liggéeyal yàlla la ci néegub yàlla nga ko def te liggéey wutit ni nga ko waxee léegi yaa ngi sukkandiku ci gëm yàlla ak jub ak jubal te loolu lépp sax day dellu ci gëm yàlla rek ndax alquranul karim mi nga xam ne moom lañ suñu borom yónnee euh, dafa wax ne euh, alif laam miim daalikal kitaabu laa rayba fii waaye hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin hudan boobu rek wax nañ ne moo tax li nekk ci alquran lépp li muy bari bari baatu hudan boobu rek lay jàngale si muy njub kon nag su fekkee da nga na njub kooku teg ko ci suñ kanam ci sa kanam euh, na nga jàpp ne njub moom lépp lu ci waay lu ko waay yootoo rek yàgg-yàgg dana ci jot incha allahu taala ñu ñaan suñ borom nag mi nga xam ne dara taw ko mu def jàmm ci réew mi defal leen jàmm yéen ñi nga xam ne yéenay wut réew mi suñu borom itam defal leen tawféex euh, jàppandal itam mbir yi ba ñu amee ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee xanaa rek di leen wax ne euh, réewum Sénégal réew la moo xam ne niti jàmm lañ ñu bëgg jàmm lañ. lépp lu am rek jàmm moo leen ko gënal kon képp kuy wut réew mi na nga def sa xel ci ne nitu jàmm ngay wut ngay ngay ngay wutal am ngay wut a jiite. nitu jàmm ñoo nekk sax waxtu bu la tànnee na nga yëg ne dañoo jàpp ne am nañ ci yow yaakaar ne nitug jàmm nga loolu moo tax ñu tànn la kon suñ la tànnee rek nanga nga ànd ak ñoom ci jàmm jooju nga xam ne moom lañ la tànnee woon te jàmm dañoo laajoon Serigne Touba ndax loolu ñu laaj ko ndax am na lu ko gën ba agsi jàmm. waaye bañ ko laajee jàmm daf ne gisul gisul moom lu gën jàmm ci àdduna gisul lu gën jàmm ci àllaaxira kon jàmm ci la lépp mën a sukkandiku nit balaa mën a jëm kanam dafa am jàmm balaa mën a yokk dafa am jàmm balaa xelam di mën a xalaat dara sax ngir réaliser dara dafa am jàmm kon jàmm yéen ñiy wut réew mi na nekk li jiitu ci lu ngeen di xalaat nan la jàmm mën a lawee ci àdduna bi jàmm nag soo gisee ñu di ci wax loolu mooy dafa jafe tumuranke léegi ci àdduna bi fépp ci àdduna bi fune ne fii ngay boy fii ngay saxar fii ngay tàkk fii ngay yënd bu boobaa nag la am solo mooy yow fa yàlla féetale te nga xam ne ñooñu nitu jàmm lañ xamuñu ay ba àdduna solo ba léegi mësuñoo xamu ay ñooña yow toujours luy suuxat jàmm jëmbat jàmm seen biir rek mooy doon la nga xam ne mooy eh, la leen jik ñun moom jàmm rek moo nu jik jàmm jooju nag ñu ngi koy ñaan suñu borom def ko ci seeni xol te def ko ci suñuy xol te def ko ci xoli Sénégal gépp euh, di rafet njort nag ci yow bu baax ci qualité yi nga xam ne dégg nañ ko ci yow euh, gis ko itam ci saw doxin loolu tax na ñu am yaakaar ci yow rafet njort ci yow di la ñaanal itam di la wax ne euh, barab bi moom barabu ñaanukaay la sëñ Tuubaa nag daana wax ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi moom yàtt ndab waaye bu leen ma xarab it xarab leen ndab li moom mi yàtt ndab li moom suñ borom jox na ko loo xam ne euh, daf koy joxewaat xaza inu rabbi fottixaat li wa zahzahat li xayril aza dunia wa uxra wa barsaq waaye nag ci ndab la koy def ndab li nag suñ borom moo ko yat benn mu réyal ko mbaa mu tuuteel ko am na ci nag yow loo xam ne mooy ci sa wàll mooy moom am na fu la jotal ne def ci ndab lu tax boo raxasee sa ndab taaj ko ko mu duyal la ko waaye nag bu ndab li taxee du du duy ndab li it nu mu toll noonu la koy duy bu rëyee mu néew bu néew mu bari bu tuutee mu néew ndab li nag mooy xol xol pas-pas pasteef bi nga xam ne moom nga indi ci moom moom nga indi ci moom ci boobu pasteef boobu ci la lay tontoo pasteef bi nga indi ci moom rek moom la lay tontoo boo de boo loo loo ko loo loo sàkku ci moom nu ca sa pësteef tool rek noonu nga koy amee kon nag am naa yaakaar ne ba ngeen xalaatee ñëw dugg fii ci barab bii am na pas-pas bu ngeen indaale pas-pas boobu nag buñ ko nàmmee te sellal ko te rafetal ko bu wéetal yàlla e, nangul yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom boo ko ñaanee mu jox la incha allahu taala kon nag ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm te di leen tàllal loxo di gën am ci yéen itam yaakaar bu baax a baax di leen xamal ne nag ñun nag ñi ngi fii yàlla dogal na wax dëgg yàlla doonuñu ay nit politique doonuñu ay niti politique ndax li ñuy def méngoowul ak politique waaye barab la boo xam ne képp ku fi ñëw ku jóg ba ñëw fi ngir jëmmi yàlla danañu la dalal danañu la teral ngir jëf ab jullit nga bu ñëw ci ci biir jullit di mbokkum taalibe mu ñëw ci mbokki taalibeem di mbokkum sénégalais mu ñëw ci mbokkum sénégalais di yaakaari sénégalais yu bari itam yoo xam ne am nañ ci yow yaakaar ba tax ñu tànn la tegle fi nga nekk kon soo ñëwee loolu yooyu yëpp danañ ko danañ danañ danañ ko ci danañ ko sàmmanteeg moom ndax Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne wa raa'i fii kulli xalqin xaqa man xalaq nit koo gis rek sàmmante ceeg jëmmi yàlla ma nga xam ne moo ko sàkk waaye yàlla it ni mu sàkkee nit ñi kenn ko nekk daf laa jox ab cër cër ba mu la jox nag bokk na ci ngëm yàlla nit ki cër bu ko yàlla jox nga jox ko ko kon na nga yëg ne cër bi la yàlla jox jox ñu ngi la koy jox di la wàcce wàcc wàccuwaay bi nga xam ne ne moom la la sa borom wàcce di la ko itam ngir ay juddit lañ yoo xam ne moom lañ ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ fas yéene doon kon ku fi ñëw cër bu la yàlla jox rek dañ la ko nangul nangul lañ la cër bi la yàlla jox ñi ngi lay dalal jàmm nga yëg ne lu manqué yit du si suñ coobare waaye suñ ñoon cër bi la yàlla jox nu toll noonu noonu lañ lay dalalee te loolu it mooy suñu bëgg-bëgg nga jàpp kon lu manqué ci matat gi doomu aadama la waaye ñun moom loolu mooy suñ pas-pas ci képp kuñ gis ñu ngi lay sant bu baax di gërëm bu baax ci tànn gi nga barab bi ak temps bu yaatu bi nga xam ne jox nga ko barab bi loolu lépp nag na nga xam ne yëg nañ ko ñu ngi ñaan lañ am ñu ngi lay ñaanal bu baax di sant itam kilifa yi nga xam ne ñoom nga àndal ñoom ñëpp góor ñi ak jigéen ñi ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.